Mamadou Kane Diallo muy ex directeur COSEC don ministre conseiller sous l'ère Wade tay ñi ñëw fekk ko fi ci festival Chant des lingères initié par la diva Kumba Gawla diggante ma Coumba Gawla nak yaakaar naa ni kenn dootu ko wax ndaxte fu ñu gis Coumba Gawla gis nañ fa waye fu Coumba Gawla eggal tay foog naa ni loxoom egg monsieur le ministre conseiller est-ce que mën nañu am tay sa impression par rapport à initiative bi Kumba Gawla jël organiser festival Chant des lingères pour défendre les causes de la femme l'autonomisation de la femme les violences de la femme la scolarisation des filles wa impression bu baax parce que vraiment soirée bi réussie. réussir na ñëwoon naa ci première édition c'était déjà bien mais nous avons gën nañu gis continue bu nga xam ni euh, may nañu espoir que lii ci kanam la jëm parce que mobilisation leader jigéen ñi pour nous combattre pour l'émancipation de la femme, pour nous combattre pour l'épanouissement des filles, pour nous combattre tout court pour le développement de l'Afrique et des différents pays, surtout du, du, West africain. Bon, parce que vous disiez la dame Fat Sabali qui vient de la l'Anambé, avec les artistes qui viennent un peu de la sous-région, ak ñi ñu euh tay jox prix yi muy ay genre aminta mbeng Ndiaye ñom Seynabou Gaye Touré mu Waré Sarr wala ñom Thérèse Faye ñom Nata Samb ak i ñeneen ni on se rend compte que véritablement que ay jigéen ñoo xam ñu am fulla ñu am fayda ñu xex pour egsi fuñ ñu la donc exemple bobu lañ bëgg a joxe loolu ma waral je pense que euh, soirée bi vraiment lépp luñ ci doon sentu lu am nañ lu ëpp parce que artistes yi di wone nañ aussi ñoom ils y a un message de notre population Alors, bon dirigeant africain utiliser ce genre artistes pour que l'Union, ñuy leadership féminin li scolarisation des filles li ñuy lutter contre les mariages précoces li contre les violences sur les femmes et les violences sur les gens, contre les violences tout court nous défendons. parce que je dama que la perte de valeur